merci beaucoup, Maudou. Surtout, maire Maman Diaye Mao, euh, Taïden Fignon, dans le cadre de la coopération avec l'ICG. Nous sommes venus avec Maman John. Nous vraiment venus pour euh, faire l'opération euh, sur cette île. Nous sommes venus au maire d'Ara. Je pense que nous sommes venus à l'école. Euh, depuis 2014 nous léegi accompagné euh, vraiment muy lo xamni vraiment lu ñu ñu ngi am mbégte ak euh di wax euh, population euh ñu gëna une forme, une dynamique par rapport la gestion mbalit parce que tout récemment rek gis nañ un ben ben ben mouvement bu fi commencé di di wax ci walu alors que lépp ñom ñoo ko waral bu ñu xoolee à chaque chaque instant euh, dañuy ñëw fii euh, nettoyer ko mais suñ demaatee quelques jours rek dañuy gis mu mel comme ni melaatu donc ñuy profité aussi occasion bi rek pour wax ne population bi li ñuy def ñoom lañ koy def euh, parce que UGG li nga xam ni ñëwoon na ko pour defal ko commune Daara nekk na loo xam ni yombul parce que même bu fekkee vraiment compétences transférées là. Nous avec une matière lourde L'opération opération business pratiquement mu 10 millions 11 millions je pense que nous avons yomb. sites euh, Si sites sites pratiquement fi euh, population euh, vraiment lancer un rek pour population bi xam ni vraiment lii mairie di def ñoom lañ koy defal euh, te suñ ko defee ba pare ñu ngi ñaan vraiment ñu ñu ñu veiller ko gën si taxaw ba xam ni vraiment euh, euh, tour mbalit mi nga xam ne ñu ngi koy tour fi ñu ko wartu tuur nekk na loo xam ne vraiment du du ñu rafetlu wuñ ko te en retour suñu mairie lay dellusiwaat te ñoom ñooy créer condition yooyu nekk daara ci ndigalu ministère de l'urbanisme du logement et de l'hygiène publique ñëwoon nañ fi euh, ay fan si ginnaaw Euh, pour élaborer un plan d'intervention de nettoyage et de pérennisation bi nga xamee ni da doon mm, saytu naka pour jël mbalit bi d'ARA, mais buñ ko avons ba pare pexe nous ñuy fait ba nga xam ne dinañ lawal cet gi ba point ñu du donc ce plan nous avons élaboré nous avons ko autorité après ñu jotaat instruction à travers euh, le ministère de l'urbanisme du logement et de l'hygiène publique UCG déployé une ab mission tey euh, avec ay matériel lourd donc bon, c'était on a amené un bulldozer D8 donc Ben pelle mécanique 966 euh, trois camions de 20 mètres cubes également un personnel accompagné pour défat balayage ou artère principale bi un peu voirie carrossable pendant 13 jours donc pour euh, carrément avoir impact visuel sur les populations dans le cadre de la satisfaction en matière de gestion des déchets